bu la neexee tey ci ngoon nga am la déclaration de François Hollande et de Macron seen déclaration de patrimoine nga am ko yow sénégalais nga am bu président de la république France bu la neexee tey ci léegi nii fi nga toog mais ñun suñu bos mënu ko am y a problème mais et puis xam nga ce sa se fait de l'intérieur mooy ñoom seen bopp am na ñoo ne boo to yéen ni ngeen waxee ne ñoom dañ leen di wax naan ñun duñu ñëw parce que xamul lu ñuy wax noonu la ñuy waxee ne du ñu def déclaration parce que président defu ko ma ne. comment ça président defu ko. non da nga bëgg da nga bëgg wax ne président def na ko wax ma fu mu ko defee. bi muy bi ñu ko falee 2012 deful déclaration de patrimoine. ah bon yow da nga jàpp ne 2012 rek dootul def déclaration patrimoine boo même bu amee 18 mandat mais ngoonte looy toogee fii dama nga seeti ko. dañu ne le président nouvellement élu bi ñu fal bees. pourquoi mu prêter waat serment pourquoi mu prêter waat serment pourquoi conseil constitutionnel dajewaat pourquoi ñu demaat élection fal bu bees la dafay prêter serment parce que diggante bi yor na fi xaalis bi muy ñëw huit milliards amul ñaata la mais dañ koy waxtaanee xanu xamoo ne kilifa bu toog ñu jëw la képp ku jiite nit ay ñu jëw la te buñ la jëwee ba pare li gën a naqare dañ koy génne. ñoom seen bopp ñoo ne pourquoi ñu koy def bu ñu ko defee c'est pas la peine normal am na ñoo xam ne lu ñuy def dara dañuy bind leetar yóbbu parce que président deful waaw président moom bi mu nekkul dara nekkul ministre commencé liggéey yàggul man fi am un milliard ci gouvernement mu mu toog yàggul huit milliards du loolu la wax waa léegi nag duñu wax na naam gars yi ne bu waxul lu ñu am duñ ko wax amuñu ci sañ-sañ ma ne kuy tere carte ci këram doo boloot nga ne kuy tere carte ci këram. du bolot doo bolot. président na def déclaration réelam xam nga lu Ablaye di wax daf ñu ne wax leen wax na fii ne dee leen multiplier ne bu fekkee ne dafa am ay kër yu ma am à l'étranger Houston wala Boston wala New Delhi maire yi ko moom nañ ko jël nous demandons aux organisations internationales aux ambassades fu ñu fekk kër boo xam ne Abdoulaye waat daf ko acquérir pendant qu'il était au pouvoir quelque part dans le monde nañ ko jël na président Macky Sall def loolu na ko yeneen ministre yi def mm-hmm. na ko ñeneen ñi def pouvoir nag wax naa la ko léegi ah on ne peut dans un pouvoir en toute impunité c'est clair ah waxuma ne je suis de mm-hmm. mais façon bi moo wutee waa ji dafa sàcc tuuti ci soow mi. yéen tuuti ngeen doon jël moom mi tibb. non wax waxuma ne ñun tuuti la ñuy jël dama jàpp ne rek nit ku nekk. dama doon jéem a say propos. waaw dama bëgg a xam ne nit ku nekk ci li nga nekk am na ci loo def loo warul hmm. moo bind noonu nit. absolument. yàlla moo bind nit ñu tegal ko ne dafa lii mu xaw a jàdd yoon. mais xam nga fan la mérite bi nekk ki jàdd yoonu yàlla ba pare gisaat boppam wàññeeku. xam nga milliard jëkk fi am hmm. joxe ko nii mais Senghor def na ko bi muy ubbil doomam structure privée xam nga ñaata la génne est-ce que xam ngeen ko yéen xam nga lu ma ko doon defloo maison de disque 4 milliards la génne pour Golden Baobab fekku leen fi réew mi fi xaw dafa yàgg de laaj leen onkat Habib Thiam ak gorom laaj leen ko donc réew dañ koy construire am na foo xam ne bu fa àggee. ndànk-ndànk nga koy tabax. jiirookat yi ngay wax kenn du lekk kenn du jiiroo doo téye seen loxo te ñëpp la doole ndax reer bay tuuru da leen di wax saxamil defal ndànk après ëllëg ñu ne la sa biir fees na bàyyi fi loo noyee donc il faut ñun laa dama ne pomme politique yëpp.